Bonjour à toutes et à tous. Encore une fois, merci euh, de l'honneur que vous nous faites en nous associant à cette activité. Je tiens à saluer d'abord les représentantes de nos différentes régions, Saint-Louis, Louga, Matam, Fatik, Ziguinchor, Durbel, Sédiou, Là-bas au fond, c'est Tamba en plus. Ça, c'est ma région en plus. Tambacounda, Dakar, bien évidemment, Thiès et Kaolac. Toutes nos félicitations pour le déplacement. Massa pour ceux et celles qui ont eu des difficultés dans, dans, le, dans le déplacement et les bagages et la vie. Euh, bravo pour ce que vous faites de représenter le, le Sénégal dans sa diversité, de représenter les différentes euh, régions, vos compétences à transformer euh, ce que la nature, la terre et Dieu nous donne à, à consommer. Euh, merci, monsieur le maire et euh, la commune de, de Thiès de nous accueillir dans la capitale du, du rail. Euh, merci au, au système des, des, Nations Unies, euh, au PNUD, à l'UNICEF, à ONU Femmes, la FAO, le PAM en particulier, euh, d'avoir joint leur, euh, leurs efforts pour organiser euh, ce concours sur euh, la transformation des produits locaux. Alors, c'est une activité qui pour nous revêt un, un, caractère très particulier parce que elle concerne deux choses absolument essentielles euh, nos produits locaux, bien évidemment, alors que on a vu la crise ukrainienne, la crise de la Covid ont montré les difficultés à s'approvisionner et euh, l'importance, ça a été dit, de pouvoir relever, relever le défi, le défi de la souveraineté Ça, c'est un élément extrêmement important. Et la deuxième chose, c'est le, c'est le concours. Le concours, parce que le concours, c'est certainement l'une des plus belles choses pour départager euh, les individus. Ça appelle chacun à se dépasser, à faire mieux, à se comparer et ensuite, effectivement, à choisir. Euh, mais pour ceux qui ne sont pas vainqueurs, ils ont au moins appris. C'est Mandela qui disait, on ne gagne, euh, même si on ne gagne pas, on, on apprend. Et je pense que c'est extrêmement important que dans le domaine de l'entrepreneuriat, on puisse aussi mettre les gens en compétition pour qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes euh, et montrer ce qu'ils savent faire et compétir, progresser, montrer leur talent, montrer leur région, euh, peut-être euh, ne pas gagner, mais apprendre pour gagner la prochaine fois. Donc félicitations à tous les participantes. Là, il n'y a pas d'ambiguïté. De, de, C'est bien ES, mesdames. On va... C'est pas grave. D'habitude, il suffit d'un homme pour qu'on dise, euh, pour qu'on dise au masculin. Aujourd'hui, même s'il y a 10 Monsieur Diallo, c'est toutes les participantes. Monsieur Diallo, il est avec les femmes. <laughs> Donc, toutes nos félicitations. Donc, l'ADPME se tient à vos côtés pour euh, vous accompagner dans votre démarche. On se veut le, le coach des futurs champions. Beaucoup des participants, on a eu à les accompagner. Ce que l'on se donne comme défi, on le disait avec le DRDR que je tiens à à saluer pour euh, euh, son leadership et toute l'action qu'il a menée, ainsi que le, le gouverneur euh, de la région de, de Thiès. Ce que l'on a besoin, c'est de la transformation. Les pays ne se développent que quand ils s'industrialisent. Une entreprise, ce n'est rien d'autre qu'une activité qui permet de transformer quelque chose parce que l'on a besoin. Euh, la DPME Son ancêtre, c'est la SONEPI, la Société nationale de promotion industrielle. Son objectif, c'est de faire en sorte d'industrialiser les entreprises. Et nos femmes, on le voit, quelles que soient les régions, ont la volonté, les compétences, les capacités de pouvoir transformer les euh, produits locaux et surtout de faire en sorte que l'on produise davantage. Aujourd'hui, les agriculteurs ne produisent plus pour produire, ils produisent parce qu'ils ont des acteurs de la transformation qui sont prêts à leur acheter leur matière première pour la transformer et pour la vendre. Donc l'amélioration des chaînes de valeur, ce sont les groupements de femmes, ce sont les GIE, ce sont les unités de transformation, quel que soit leur lieu dans le territoire. Et pour qu'elles transforment en masse, pour qu'elles transforment bien, effectivement, c'est de la formation. Ça a été dit, c'est de l'accès au marché, mais c'est aussi de l'accès, ça a été dit, à du financement et à des machines. Et donc euh, ce concours, il montre la voie. L'appel que l'on fait à l'ensemble des partenaires, à One UN, à l'ensemble des acteurs, c'est encore une fois de se mettre ensemble. On dit seul on va vite, ensemble on va loin. Donc aidez-nous à aller plus loin pour permettre à ceux qui permettent de transformer nos territoires, la vie des habitants, créer des richesses, créer des emplois, de pouvoir faire au mieux leur travail. et je suis convaincu Merci beaucoup waaw euh, tey ci suba de Thiès dafa nekk di abriter benn concours boo xamante ne niveau national la ñuy xool ay groupement yoo xamante ne dañuy euh, dañuy liggéey ci wàllum transformation produits locaux yi. ñu defal leen concours ku nekk xam na ne euh, tey jii ni lu jëm ci sécurité alimentaire maanaam li nit ñi di jëfandikoo pour di ko dundee amaana sooxe na lool te seetlu nañ ne amaana ñi suñu maam yi wala suñu papa yi doon dundee ak ñun nu ñuy dundee wute na lool te ku nekk xam na ne bëgg a dund jël li ngay dund yëpp basé ko ci jëlee ko ci beneen réew dikk yi fi xew yëpp wane na ne mën na am dina am ay gàllankoor yu bari ndax ku gis tey bële bi nga xam ne moom la ñuy defaree euh, mburu tey pour ñu am ko day jafe lool ndax crise bi nga xam ne am na Ukraine it tamit euh, boo xoolee tey Sénégal règlement climatique tax na amaana suñu béykat yi ñu doon am ci production agricole wàññeeku na lool wala taw yu bëri yiy ñëw day créer ay inondation ba nga xamante ne récolte yi ñu doon def sax day fay wàññeeku lool léegi nag ñu ne nan la ñuy def pour mën a booster ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci chaîne de valeur euh, transformation produit agricoles yi nga xamante ne ci seen biir am na ñoo xamante ne ay kàngam lañu ñu jël leen def leen ay modèle organiser leen ay concours euh, togg ñu basé wu ci suñu ay produits yi nga xam ne suñuy produit cosaan la muy produit locaux yi bu ko defee képp ku ci génn ñu mën la primer accompagner la loolu nag euh, dañ ciy ànd ak euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy waa Nations uni à travers PNUD ak ak ONU en relation avec ADPME ñu ñëw wane ñi nga xamante ne ay jàmbaar lañ ñoo ñi si ëpp ñëpp nag nekk ay jigéen ñu di ko rafetlu lool ñu primer leen accompagner leen parce que dañu seetlu ne groupement yi am na si ñoo xamante ne gaa jàmbaarte gi mu nga fa waaye des fois comme gi moo dul demee noonu bu ko defee bu ñu amee accompagnement en matériel accompagnement financier ADPMA ak expertise bi nga xam ne am nañ ko ñu ñëw partager ko ak jigéen ñooñu dinañ gën a mën a développer seen activité ba bu ëllëgee fii ak ñaari at ñetti at amaan dinañ mën a am yeneen source de financement yoo xamante ne dina leen permettre seen activité gën a ñokk ba nga xamante ne amaana ndóol gi nga xamante ne gis nañ ko par endroit dina gën a wàññeeku.